mbokk yi salaamaaleykum wax ji mën na bañ gudd euh, defe na njëlbeen ñuy wax tey bu situation bi demewoon neneen moo fi toog di wax ndax ñépp xam nañ ni am na lu métti métti métti lu dal suñu kaw ci lu gàtt daanaka ay bés bi weesoogul muy ay dëj ñu am ci suñuy collaborateurs muy loo xam ne metti na torop métti na ci Sénégal yépp naka nag si ñun ñi nga xam ne ñoo doon xëyandoog ñoom di yendoog ñoom di fanaan ak ñoom léeg ci condition yoo xam ne yu jafe-jafe la kon maa ngi ubbee sama kàddu ci jaale Sénégal yëpp jaale coalition bi di ñaan suñu collaborateur yooyu suuf set seen kaw yàlla xaare leen àjjana xool nañ du yàgg balaa ñuy ñëw teew ci lii ndax dëj bu tooy la rongo ñi feragul waaye jàpp nañ ni ñoom ñoo ñu dem lii woon seen gëm-gëm ak seen bëgg-bëgg ci Sénégal ba fu ma mës a ne ña fa fu ma mës a jàkkoontoon jafe-jafe ña fa ñenn ci ñoom biñ may jàpp ci mois de mars maag ñoom lañu ñu jàppandoo ñu dem nekk brigade de section de recherche pendant cinq jours kon bu dee mbir mi tolloon na leen foofu niñ leen mu ne delloo njukkal mooy du tëju di jooy waaye li taxoon ñuy yëngatu ak lii woon seen gëm-gëm ñu fexe ba tey ñu gën a dëgëral taxawaay ba loolu sotti te loolu mooy lii kon defe naa wax ji nit ñi tënk nañ ko ba noppi tey ci suñu recensement président Déthié jotul woon dugg ci détail bi waaye defe naa maatam gore Foundiougne département Golf Sud Tiwon Peul, département Sam Saint-Louis département Gandon Mbour ville et département Kédougou commune Pikine ville Sandiara Sabodala Khosanto, def de nous la ñu recensé du benn commune département bi yëpp la daanaka kon loolu lu coalition yewi Askan mënul nangu la parce que élection yi dafa am enjeu yu bëri nit ñi dañ naan élection locale rek mais weesu une élection locale parce que le 23 janvier 2023 22 suñu si yàlla yóbbu si bu ñu toogee ba guddi du ñu lim rek ville yi nga xam ne moom la nit ñi gën a séenu kan moo ko gañe du ñu lim rek kenn ku nekk ñaata commune nga gañe waaye dañuy boole lim ne kenn ku ne ban pourcentage nga am ci vote bi ku ne woon amoon naa 58 pour cent ndax dangaa des 58 pour cent wala wàcc nga 50 wala yaa ngi 40 commune bu ne rek commune bu am importance ci nit amul commune bu ñu xeeb boo gañewul lan fay fortaatu ci ay voix day ñëw ci cagnotte nationale bi bu ñu waree def le décompte moo tax yeewi askan wi góor-góorlu ba investir fépp xam ngeen investir fépp yombut coalition yi ko mën bëriwul de liggéey bu rëy rëy la ci ay fan fani fan wala ay weeri weer ay guddi yoo xam ne nelawuñu loolu di liggéey bu ndaw parce que dañu xamoon lan mooy enjeu bi ne waruñoo xep benn voix te lii ñuy doxal nii commune boo newul rek zéro voix nga fa am kon fu toll ni Mbour nga xam ne ci électorat yu gën a mag la fii ci Sénégal ñu ne la Mbour googu zéro voix lañ la fa bëgg defal loolu Yewwi Askan bi mënu koo nangu xalaatuñu ko nangu kon lii ñu ñu bëgg a teg duñ ko nangu liggéey boobu nga xam ne liggéey nañ ko ci ay weer laa wax liggéey ko ay at lu ne ñu jàpp daj ko ba egsi fii duñu nangu ñëw ba tey benn préfet wala benn sous préfet toog fële ne moom ci loo xam ne teguwul ci fen mooy xëy rek far loolu est-ce que sous-préfet le travail bi nous avons di pour bo wara dossier tek ko est-ce que nous xam ko est-ce que sous-préfet xam nga moi j'ai été fonctionnaire je connais la fonction publique mais si na ci li ñu wara a ci formation fonctionnaire nous avons ñu ko ci cadre bureau bu muy mu xam li mu war a gérer li mu war a régir environnement socio-culturel bi ne ci autour yépp parce que préfet wala sous-préfet bu toog bureau xamoo fu nit ñi jaar ba egsi xamoo lu ñu daj nga ñëw ñu jox la ay ndigal ngeen jéggal ma mais ñu mel ni ay dëmm yu jëfuur di toog rek di di góolu liste yeewi askan wi di xool lan moo ci manqué ban signature moo ci manqué ban xam nga suñu bëggoon rafetal mbir mi sax ñu ne am na ñaari liste wala ñetti liste benn bokk yaakaar ñu rejeté benn sous-préfet mënu ma ne sur l'étendue du territoire liste benn bokk yaakaar yëpp matoon nañu bi ñuy ñëw sànq wax naa ko sous-préfet Guédiawaye nee naa ko on va te poursuivre personnellement parce que amul droit rejeté te jaarul sax ci commission te lim bañal liste Yewwi Askan Wi mu ngi koy nangul yeneen liste yi parce que liste yëpp ñëwoon ak dossier yu manqué as tuut mu nangu leen ñoom ñëpp ñu andi service daal di bloqué bi Yewwi Askan Wi te ñu ngi ci délai yi loolu forfaiture la moo tax ñoom dañ leen ñu poursuivre pénalement et à titre individuel Sénégal nag li fi nar a andi fitna mi ngi jóge ci ñaar ba ñetti catégorie chaque jour ma wax ko administration territoriale néew ñu de su ba nga gisee ñu génn waaw song na administration waaye préfet sous préfet nga xam ne c'est des ñu ci bëri c'est des démembrements de l'APR su élection jotee ñoom bokk nañ ci liy taal réew mi te catégorie bu nekk nag nañu xam ni réew bu tàkkee ñoom duñ ci mucc organiser élection jafewul nañu impartial tolloo leen ñëpp élection yi jaar yoon mais gérer vos petites carrières personnelles nomination pour quelques milliers de francs de plus promotion boo quelques milliers de francs de plus nous nga wara a sànq réew mi ngir lool loolu dafa war a jeex Sénégal duñ ko nangu catégorie bi moy les forces de défense et de sécurité wala ñi leen di commandé bokk na ci ñi a yàq réew sécurité te ñom ñoo waroon garantir sécurité ak stabilité réew gis ngeen li xew barki démb ba ñu bougé wuñu parce que dañ ñoo bett deuxième round bi mu amee ñu duma ba ñoom ñëpp a ngi hôpital waxuma la police waxuma la gendarmerie waaye armée la ñu andi armée yéen ñëpp gis ngeen vidéo benn homme politique di jox ordre les forces de défense et de sécurité loolu gàcce la ci force de défense sécurité yi ils sont des complices wala ñi leen di commandé ci liy xew parce que lu am yéeg nañ ko xam nañ ko suñu yaakaaree nag ni

lim mu bëggoon nag créer une terreur généralisée ba kenn du ñeme loolu wëlbatiku ci moom ba tey c'est lui qui est le terrorisé ndax yow soo demee ba sa titre foncier yaa ko woowee noonu yaakaaroo lu dul ci ay jënd ay nit pour saboter ay liste parce que bëggoo compétition am fa man de am naa ci partiellement yaakaar waaye yàgg naa wax ni justice bii dès qu'un dossier a une coloration politique à 99 pour cent bu ci yaakaar dañ leen di jox or ñu def la justice sénégalaise ma leen di wax nag cette justice là Barthélémy Diaz sera le candidat de Yewi Askan Wi bu soobee yàlla kenn mënu koo tere nekk candidat et nous gagnerons Dakar incha allah kenn mënu koo tere gannaaw yàlla lii ñuy def nii dafa ñaaw ci Sénégal 10 ans nga yor dossier di lambar lambari 10 ans 10 ans nga yor ko dossier di lambar lambari ba nit déposé le lendemain nga naan da koy convoqué moi si j'étais Barthélemy du ma ouïe Yag naa leen ko wax nee naa leen man nee am nañ dossier bind na def naa lu ne euh, euh, euh, un juge defuñu ko bu ma demee ba déposé sama candidature suñ ma wooyu du ma wuyu ci demuma respect des institutions des fekk institutions yi respectable mais ay justice boo xam ne amuñu belle personnalité topp Macky Sall mii rek fu mu leen joxoon ñu dem loolu dafa war a jeex réew mi te kenn du ko nangu lu mu leen jaral nañu ko jaral je le ku mu neex rek nga toog fa leen ne Sonko nitu fitna la j'assume waaye man duma koo xam ne dañ may ñëw noggatu toog duma ma dóor ma tëj ma ma naan incha allah macha allah defuma ko soo ma ëppee doole rey ma soo ma ëppee doole rey ma waaye je defendre te loolu rek moo fi des ak Macky Sall bu dee nag Barthélemy day wuy ji maa ngi toute la jeunesse sénégalaise lundi à la première heure ñëpp nañu daje gunge ko ba tribunal Vous fa kenn xaj parce que il est le candidat de Yewwi Askan il est inshallah le futur maire de Dakar l'un de nangul lenn lu ko gàllankoor kon sama wax du gudd j'appelle toute la jeunesse sénégalaise tous les Sénégalais et puis de justice ñu jóg def face à ces forfaitures là élection dañu wara bay bàyyi ñi war compétir compétir le peuple tànn fenn fo xagn ci lo xamné tégul ci yoon nga xagn xagn fa ab élection fofu amu fa da nga créer les conditions d'une victoire sans adversité te nak fu ko def dinañ jël tout suñu matuwaay yépp pour foofu élection bu mu fa am lépp dinañ ko assumer te man mako wax fi donc on a jël seen responsabilité parce que ces forfaitures avec la complicité de l'administration avec la complicité à venir de la justice sénégalaise le commandement des forces de l'ordre Andak défendre d'exposer exposer les leurs adversaires politiques Lors lenn veux que le peuple soit debout j'appelle le peuple à à être debout pour qu'on mette fin à ces forfaitures je vous remercie